damay interpeller sa sa sa parcours ak sa expérience politique pourquoi Sénégal toujours il faut que mu am ay jafe-jafe entre le président de la République élu et le premier ministre nommé Senghor Mamadou Dia Abdou juuf bon problème yi taxawul nu mu tudd yëkkateekul ci kaw mais supprimer na le poste de premier ministre delloo si waat ko Ablaye Wade am problème ak Idrissa Seck premier ministre am Ablaye Wade am problème ak Macky Sall premier ministre am euh, Sall ñëw ci nguur avec son premier ministre Abdou Mbaye il n'y a pas eu de problème balaa muy dem mais les chose ne se sont finalement pas bien passées moom ak Aminata Touré problème divergence Aminata Touré dem y a que avec Boun Abdallah Dionne que la ñu gisul divergence mais ñu bari nee nañ c'est parce que Boun Abdallah Dionne avait accepté euh, euh, tous les caprices du patron moo tax problème yi amul mais moom tamit mujj naa dem fan yi yëpp ñu ngi jéem a laam-laame euh, une mésentente euh, des problèmes entre le président de la République Macky Sall et le premier ministre Amadou Ba lan moo tax affaire boobu topp suñu suñu suñu histoire problème bi fan la ak nan lañ mën a def ba remédier si parce que loolu crise au sein de l'exécutif la moom rek la fan moo andi lépp ah non il faut nga xam histoire bi nag Mamadou Dia Senghor Mamadou Dia du premier ministre non il le chef du gouvernement le président du conseil du woon premier ministre de moom moo yoroon réew mi sengoor yorul yorul woon réew mi président symbolique la woon président symbolique Mamadou Dia moo doon le vrai chef du pays ma doon le président du conseil di woon premier ministre léegi nag ñoom ñaar ñu bokk parti ànd mu am problème yu xew moom moomu jëne ko nañ dem sa parti ba ñu parti bi wax lu ñuy def Senghor xam ne Mamadou Dia était puissant politiquement et plus puissant que lui bu ñu demee si parti bi parti bi day faral Mamadou Dia Senghor ne ko no on passe par l'Assemblée nationale on va te voter euh, voter Euh, motion de censure contre yow nga jóg nga génn Mamadou Dia def la mu def tere leen tere leen ko def moo andi crise bi donc Mamadou Dia était président du conseil moo yoroon pouvoir yi après Senghor nag ba mu jàppee Mamadou Dia yor lépp modifier constitution bi nag def constitution bu bees ñu woteel ko ko mu ne ma man maa yore lépp nag du ma am premier ministre bu may fontoo yor yëfam ba doyle ba commencé sonn daal nañ léegi nag damay andi premier ministre mu jàppale ma nekk sama exécutant xam nga exécutant mhm. du yor pouvoir bu mu mën a xëccoo ak man du yor pouvoir bu mu mën a xëccoo ak man comme Mamadou Diallo mu yore woon di xëccoo ak man donc dama fii teg mon grand commis et <laughs> mes ministres bon ba def ko président à article nangam et cetera Abdou Diouf tam gis loolu ne neexoon na si Senghor mu lu neex si moom teg premier ministre grand commis. Habib Thiam. sans tour yi ñëpp grand commis la ñu rek. ba tey jii comme mm-hmm. si doon même Macky Sall bi mu nekk premier ministre grand commis la woon. Mm-hmm. du woon lu grand commis. tous les premiers ministres du Sénégal depuis Abdou Diouf ne sont que ou que de grands commis ñëpp sans exception c'est ça. c'est le principe qu'on a mis dans la constitution et qui continue ba tey de sorte grand commis boobu mën na dem ba bëgg a wane boppam. bëgg am doole Idriss ko dal Idriss tam la Idriss c'est Idriss et il a raison c'est comme Doudou man noonu laa mel. kon boo nekkoon premier ministre da nga jotee. j'ai refusé d'être premier ministre pas bu ma ko nekkoon. su Diouf waaw. bi ma génnee si gouvernement bi. moom xam na hmm. man xam naa man du ma nettali sama dina ñaar dina jàmbur. j'ai dit ban façon premier ministre nga bëgg ñu ne ma ba mu doonoon ma man du ma doon loolu. ku nekk sa jikko man sama jikko loolu la man loo may fal dama koy mat yor ko yoral la ko nag mais du ma surga kenn ci sama dund dama lay yoral nag loyalement mais nag da may jox cër nag man sama même ba ma amul mburu mu may lekk noonu laa mos a mel di xiif di ko uti ba am ko mais du ma surga kenn te du am sama dund waxtuma politique dama am ay sama bopp bii nu ñuy defaree réew sa idée nag laa topp mais sama bos si yokku bu dee sa bos rek bàyyi naa la ko. mais dañ ne moom mooy le président mooy déterminer la politique de la nation c'est lui qui nomme le premier ministre. loolu ma ne loolu façon boobu la d'accordul mooy nommé premier ministre d'accord naa ci mais du déterminer la politique de la nation nañ ko ko waxee mu yor lépp sañu ma bañ a d'accord du politicien la. Mm-hmm. dama ne nañu wàññi pouvoiram jox ñeneen ñu mën ko jàppale xool réew mi ni mu mel tey réew maa ngi yàqu façon bu nekk parce que benn nit mooy def lu keneen yàq dañ naan moom la keneen lu mu mënti yàq dañ naan Macky Sall la te mënul taxaw di nettali bés bu nekk di xàppati ngàppati bés bu nekk di justifier boppam bés bu nekk donc il faut am ñu am pouvoir nag yoo xam dañuy doxal yëf yi mën a gaaw tam tuuti mais benn nit rek lépp sa bureau lépp sa table lu mu jóge si lu jógewul si yow lépp a yow a mais yàgg naa ko wax man li may wax ne bu ma ko dama ko bind wax ko ba màgget il faut changer. Euh, c'est la structure du pouvoir présidentiel doo dindi lépp nag dafa nag duñ koy waxtaanee ba nga xam ne les choses sont un peu loolu moo andi histoire bu mu doon soit nga nangu ne pat soit nga xaw a wowle comme il dit je le connais maa ne wowle xam <laughs> na ma xam naa ko c'est il a raison il a de la personalité il sait quoi am personnalité la ku xam boppam la ku bañ ko ko écrasé la parce que am na xam-xam am na jom yàgg na politique boo ko joxee pouvoir da nga koy bàyyi mu liggéey donc man naa problème ak patron keneen ko xam ne da ngay sëgg rek nangu nga sëgg nangu mais man bokk ma si ñuy sëgg nangu du ma mais nan lañ mën à ça. constitution bi la ñuy waxtaanee waat. la répartition des pouvoirs ah comment mooy bu ñu toogee ñu waxtaan ku nekk wax ko. dafa man xaw ñu jël ay pouvoir dénk ko premier ministre. ba nga xam ne président man kenn bu ko mën a dindi. man kenn xaw ma lépp. Hmm. dëgg dëgg xaw ma lépp. ñi fi xam constitution fii bari nañu lool léegi ñi xam constitution ak mag ñi xam politique du xam constitution rek de parce que constitution politique la am na mag ñoo xam ne dañoo xam politique c'est du c'est du constitutionnaliste mais dañu xam politique xam réew xam àddina ñu mel noonu ak ñi xam constitution boo leen boolee wax leen ne waaw c'est tellement pouvoir yi nag lañ ko mën defaree ba ministre yi seen cër mën a dëgër premier ministre mën a jël ay responsabilité ay initiative man nag ma man leen contrôler parce que man lañu fal par le référendum ma man leen contrôler par le suffrage universel ah, ma mën a contrôler ñëpp parce que borom kër gi nag mooy contrôler ñëpp mais jox leen cër nag cër goo xam ne leen di fulaal wante bu président ñëwee nga sëgg ma président waxee nga ne nuut loo wax bu teggee fa da nga ne kii man loo commandé kell tey tey dans le système là système là un bon ministre est plus important qu'un premier ministre hmm. waaw kañ foofu sax parce que les ministres sont en relation directe avec le président de la République hein attention le premier ministre la muy liggéey mooy la ko président di yónnee et coordonnateur de l'action gouvernementale la ko président di yónnee moom lay def waaye coordination gouvernementale loolu tur la rek waaye soxna si ah coordonné muy coordonné donc on peut se passer du premier ministre comme ni ñu ko defee. pendant deux ans mais il s'en est passé tout le monde s'en est passé waxtu la neexee da nga andi waat <laughs> yow tam. non Wade Wade ne ah, parce que moom la neex. Mhm. Ah, moom la neex moo xam na mu doon doxal ak ñoom Macky moo xam na muy doxalee ñoom mais da ngay dindi di teg di dindi di teg Abdou Diouf def na ko Macky Sall def na ko lu mu changé si réew mi parce que le premier ministre n'a pas parce que président yi mooy toog ne waaw sama dossier yi ma teg li fii bari na lool. naa koy envoyé premier ministre moo koy defal loolu rek la mais bu amee force su defal ko boppam lu muy doyati premier ministre bi.